nuyu di ñaan yàlla rek waaw di ñaanal makkat mi fi indi doom ji yàlla na am gudd fan ak ñu fekk ko ñun ñëpp waaw dañ koy taxaw di ñaanal Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla may wér yàlla yëkkati ko jàmm si barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw di leen ndax fu lii jëm rek fi ñu jëm rek ngeen ànd ak ñun ñu ngi ñaan yéen yàlla na leen yàlla fay yàlla taxaw leen si barke yant bi kenn ku nekk li nga bëgg rek yàlla na ko yàlla defal si barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mais père nag doo te laajuma la tuuti ci làmb parce que li tax ma la ci làmb indiwuñu combat royal ngay bëri père ñu mu ngi si jàmm mu ngi nu muy waajale mu waaw comme ni rek comme ni mu naa waajale gars adversaire yi benn la papa yëpp benn Modou Lo Balla gën a garaaw Modou Lo. dama ne Balla Gaye gën a garaaw ñun. Ama ne Balla Gaye gën a xeer. ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne moom moom ndam. yàlla mi nga xam ne moom moom ndam. waaw teer ko. ñu ngi koy tàllal loxo di koy ñaan ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di koy ñaan ci kilif diini yëpp yàlla may ñu ndam. ndax ndax bëri ndax da nga ko ragal daa ni ngi sant yàlla rek. ñu ngi sant yàlla rek bu boobaa rek xam. ndax bëreeg Modou Lo yomb boobaa la ñuy xam. ñu ngi sant yàlla rek. ndax bëreeg Modou Lo yomb man daal xam nga lu ma fi indi. waaw. makkat day mu ñëw ñu ngette ni moo ñu fi indi. ndax bëreeg Modou Lo yomb ñaan yàlla doom doom doom ji yàlla may ko. gudd fan ak wér. ndax bëreeg Modou Lo yomb na. Assane Assane ana Assane waaw waxu bu waxu bu ñëw yéegal yow it Assane yow it sa ay eh, Lamine Lamine soxla naa la de waaw ma ne non non yaa yaa yaa ndax bëri góor la yomb yombul ne Modou Lo di samp yow mag jël wala zarim def ko nga ay Modou Lo yombul Modou Lo Modou Lo yomb Ah, waaw dama ne dama ne sant yàlla bu mag a mag a mag waaw mais nag kii yor ndam du ñun yàllaa ko yor yàlla moo yor ndam ñu ngi koy tàllal loxo si barke Cheikh na sa san bu ngeen jël lii bokk waaw Medoune Diouf maa ngi lay maa ngi lay nuyu di kontaan bu baax ci yow di rafetlu sa liggéey di la xamal ni improdu réew mi bëgg nañ ko MPROD réew mi bàyyi nañ ko xel macha allah tey fii nga nu fekk nag fi ñu war a fekk la ndax ki xewle day kenn ci ñun ki ñu fekk fii tey di maris di kër Gaston xaali meng ñu fekk suñu xarit suñu doomu ndey suñu ku baax di makat meng moo xewle tey ci tuddam la nga ñu fekk tey waaye fekk nga fi tey ku baax ku ne Cheikh Mbaye mu Alaaji Mansour Mbaye fekk nga ko le président du CNG de lutte léegi la fi jóge gis nga fi tey Mansour Ba président Jàmba production teew na fi bi ci bis bi Kanji production mi ngi fi borom ETDR tey jii nit ñu baax na ñoo la déggee rek Siteu. di félicité la déggee victoire la rek xam nga victoire bi bu ñu xasee yëkkati sa loxo ci biir stade bi mënatoo ko contesté victoire la mais mention spéciale à Siteu dafa feeñal la déggee. li na buunte la dëgg yëpp Siteu da ko feeñ ndax ku dina def noonu Lac de Guiers Lac de Guiers mos ngaa gis mbër bu ko jàpp manœuvre rek bay jeex muy rëpp di jeex di xool fan la war mën a jaar Siteu contact ak Siteu xeex ak moom ah vraiment wax dëgg yàlla ah moom mention spéciale à Siteu keroog li ñu doon xaar ci Lac de Guiers yëpp Siteu moo ko def donte Siteu donte Lac de Guiers xeex na Lac de Guiers xeex na bëri na yóbbu na Siteu ardo waaye Siteu keroog ndam la ci moom ndax luur bu toll ni xam nga ñaata ñaata kilo la la dëgër yow ëppee ëppee Siteu waaye nag ëpp la bokkul ak ëpp la doole ak doole te Siteu ci bis boobu doole la indi te ci bis boobu Siteu parewul pour daanu dafa lamb si Siteu dama ko dama ko xool ci biti mu ñëw ci anam boo xam ne mosu koo indi ci làmb ma ne Siteu mi tey ñëwul pour daanu parce que léegi ñëwul pour daanu déedéet ñëwul pour daanu combat bi borom 45 minutes Siteu du daanu moo tax ma koy moo tax ma koy ma koy félicité Siteu dama koy félicité ndax keroog li mu am ci la dëgër mbër mosu ko cee am abul ah, fàtte ne la dëgër am ma seen la bëree ñaari yoon Eumeu la bëre ñaari yoon bëri na ak Modou Lo bëri Gris Bordeaux kenn mësu ko cee def noonu donte Eumeu Sène moo ko ci daan waaye Siteu moo jàkkaarloog moom jàppanteeg moom manœuvre ko waaw keroog laa mës aa ah, la dëgër sonn ci combat lu garaaw laa lay wax mais Medoune maa ngi lay jaajëfal mais di félicité Makan Xaali waaw Makan Makan sunu frère la nit ku baax la nit ku gorel mais dégg naa kase nañ verdict bi verdict la dëgër dégg naa dañ ko kase démb au niveau du CNG loolu laa dégg dama waaw loolu waaw loolu loolu moom yaakaar naa ni bu amoon bu amoon seen chef de lutte bi dinañ ko médiatiser mais loolu amul ah vraiment dañ ko dégg ne ay ay rumeur la rek parce que un bruit qui court un ah, bruit loolu la quoi mais mel ni ba tey ñu ngi fi nga xam ne ni mooy Maristes rek daje fekk Mansour ba tey ci tudd. ki nga xam ne moom mooy euh, frère am Makan Mbeng man ñu ngi lay nuyu di leen ziar. maa fay di leen bu baax a baax. Euh, tey Makan moo tax nga sol sa dàll ànd ak assurance jóge parcelle ñëw ci tudd bi. waaw waaw xam nga comme li may chaque fois ñun on est des frères àdduna lépp loo gis ay relations humaines lañ tey mu xewle euh, yëgal ñu ko ñun bu ñu xewlee dafa ñëw teew. ñu yoon moom mooy bu xewlee ci ñu ñëw teew. te waroon nañ voyager sax wax dëgg yàlla dañ ne tey mënuñu bañ a ñëw ci bëtu makan bi dañuy ñëw ba pare bu ñu waree def lu ñu leneen nañu war a def ñu soog ko def euh, kon seen ay relation moo yegg foofu ba tax tool nga dagg sa voyage waaw comme li may wax rek ñun ñun ñëpp ay ay frère lañ à chaque fois dama koy répété relation yi dafa war a nekk des relations fraternelles parce que affaire bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko bokk ku nekk mën nga liggéey sa liggéey rek te ngeen nekk teewul ngeen ay relation amicale amul animosité amul adversité ñu ñëpp ay frère lañ raison pour laquelle man ma ñëw teewal ko bu nekkoon keneen aussi je ferai damay def la même chose. am na solo relation yooyu ngay wax dama euh, seetlu ci man si man Mansour par rapport ak promoteur yi Mansour gis naa ne ñëpp daal dafa mel ni ñoom la amal relation yi nga xam ne ay relation rafet la lan moo la may boobu xel ak boobu xalaat. waaw mais Babacar comme ni à chaque fois man bokkuma ci benn coalition. waaw loolu man damay tëgg làmb bu jeexee ma dellu sama liggéey làmb bu ma fekk damay dem arène nationale dem seetaan man nekkuma ci benn clan nekkoon ci benn coalition ma def ñëpp laa seqal jàmm dëgg yàlla képp koo xamante ne ba nga ñu am jàmm dinañ am jàmm kenn nag mënul nekk xaritu ñëpp am na ñoo xamante ne samay xarit lañ avant làmb ñoom jamaïcain ñoom ñooñu ak ñoom làmb boolewuñu donc xam nga rek làmb yaatu na donc tous les promoteurs ba ci presse ñun ñëpp ay frères lañ dañuy di waxtaan leneen ci àdduna lu dul làmb donc tey Modou Anta Xewle Babacar Xewle wala Lamine Medoune tout le monde war nañ mën a déplacé wu Cheikh Omar mi déplacé wu dem teewal ko parce que ñoo bokk liggéey bu ñuy liggéey donc tey relation yi loolu dañ ko war a privilégié mu relation humaine mais barki dem nga ci journée bu mag comme li ma doon wax rek ma ne jàmbaar ba mu commencé ba tey ay combat de lamb yi barki dem bi ci mujj mooy Lac de Guiers ak yow mi ko tëggoon en tant que mm. promoteur est-ce que tey Mansour mën na taxaw ne Sénégalais yi am na satisfaction par rapport ak organisation combat boobu. waaw li ma lay wax da ma waxoon loolu da nga koy def euh, interview bu bu spécial. mais bon damay wax ne rek. comme da ngay tudd xam nga yow doon toog des fois da ngay jàmm gën a xam. wax yëpp xajul ah, mais mais mais euh, ce que j'ai à rek ci côté boobu mooy combat bi. am nañ ci satisfaction xam nga lu tax parce que Sénégal yëpp kontaan nañ issue combat bi nag kenn bëggul woon mu demee noonu ku sañoon jël am kenn daan sa morom mais yàlla moo ko dogalee noonu assurance mi du ma bàyyi ma fenn combat bi ay deux mois ci ginnaaw laa ko ne ñaan yi gis ma jël seen diggante ñu laaj ma lu tax ma ne ko seeni façon bëre waaw gis ma kenn nu muy def ba daan moromam depuis deux mois maa ngi ko koy répété yow bi ngay wax loolu foo ko tegoon ci bëri ñoom ñaar seeni technique bu bëre wala da nga jàpp ne ma ni ñuy bëri jël du am Ababacar nag ñun dañoo yàgg ci làmb xam làmb di seetaan làmb yàgg ci làmb trop xam naa ne ñaari mbëri saa ñu saa saa jàppante dañuy am problème pour kenn daan sa morom di wax ne rek non voilà ñaari mbëri def nañ lu ñu am yàlla moo dogaloon ne loolu moom may am ci làmb ji maintenant amateurs yi ils ne sont pas satisfaits ndax amateurs yi wax nañ ko wax dëgg yàlla kontaan nañu si combat bi mais dañuy wax ne rek loolu dogalu yàlla la yàlla moo ne woon ci talak de guerre si noonu lay jeexee. ci ci euh, avertissement lay jeexee quoi. bon ci avertissement lay jeexee. waaw mais Lac de Guerre de yow yaa yàlla technique bi Lac de Guerre de ak Siteu bu ma la lu ko téye ba tax mu bëree noonu loo may wax. bon analyser làmb làmb ji jàll na man li ma wax wax naa ko ñi euh, Siteu bu mu jàppanteeg Lac de Guerre benn yoon ba ñu bàyyante waru woon nangu di reculer waat parce que mbër ba ngeen jàppante war nga xam ndax am na lu la daan wala amul lu daan. da ngay taxaw ci digg géew gi nga jàkkaarloo moom ngeen bëri amoon na jour boobu lu daan la de guerre amoon na lu ko daan lu daan la de guerre jour boobu noonu amoon na lu ko daan mais bon peut-être dafay bëri ak consil moo tax muy reculer di xeex ak moom di ko gérer combat bi mais man li ma gëm gëm naa ni am na loo bu ko defoon day daan la de guerre. lag itam lan ko téye moom wala parce que Lac sax boo xoolee nag boo xoolee dafa mel ni ci li ñu ñu bëri wax moo gënoon di attaqué. wala de guerre moom moo moom moo attaqué ci combat bi moom moo dox ci kaw Siteu ndax yàlla dëgg la bëgg Lac de Guiers moom moo moom moo dox ci kaw Siteu mais aussi lamb boo ci nekkee rek moom day comme ni muy wax du ma jël risque di quatre appui lamb boo ci nekkee am na loo xamante ne lépp risque la àdduna boo jël risque sax doo am dara donc moom li mu wax Siteu comme li ma wax léegi ne Siteu am na loolu daan Lac de Guiers Lac de Guiers ni mu waxee ci signature bi ne Siteu du sa morom bu ko bëri woon lamb ji dina jeex ci bëri parce que man su ma nee tey Modou Anta mi ma sa morom dina fexe bu ñu bëree ma woon ko ne du ma lamb dina jeex ci bëre par force mais nee na Siteu du ma sa morom te dinaa la ko wan wanu ko ko Siteu aussi amoon na lu mu war a def pour daan la dëgër defu ko moo jeex au point moo mm. léegi ma euh, boobu jeex na ban événement nga nuy waaj dégg am na looy dox de Lac de dégg naa yaa ngi koy dox non wax dëgg yàlla doxuma combat boobu bëggoo Lac doxuma combat boobu tamit lamb ko dégg rek lamb lamb lamb lamb dafa lamb dafa muy doxee lamb dafa am nu muy doxee la de guerre franc nekkul hors du jour jàmbaar ñuy wax dëgg rek te yàlla tax parce que man du ma nekk ci maa ngi dox li fekk doxuma ko man su ma nee maa ngi dox combat bi di fekk maa ngi koy démarche am na nag combat yi ñuy préparé am na ay mbër yu mag yoo xamante ne nii déggante nag ñoom ñu jox ñu seen accord ne jàmbaar la ñuy bëre mais comme la à chaque fois mbër bu nekk ci contrat dama sori ci ay waxam mais am na kindaa bi ci la bokk surtout man ak moom contrat moral lañ am contrat moral mooy Siteu saa yu jàmbaar pare moom lay moom lay bëreel mais mais dafa am lu am moom mooy contrat moral lu lu ñu xaatim bu gisee keneen ku ko fay lu ko gënal day dem bëreel kooku comprendre nga contrat moral bi nag moom mooy priorité am jàmbaar la tey bu ñu waxtaanee ba jubal ñu tëgg combat am. mais proposé nga ko dara Siteu. non dama koy bàyyi mu noppalu dem jon waar dellu si ba xelam dal ñu soog a na pare na de Ama ama champion la loolu combat bu neex la dama koy wax chaque jour ku dégg sama wax dama naan booy nañ bëree seen biir bu ñu bëree seen biir moo mën indi waa làmb ci yenn niveau yi mais ku ciy seet keneen koo bëreel day mujj doon Manga Moustapha Gueye damay bëri na ba seen carrière jeex te bëriwuñu seen biir te loolu regret lay nekk tey ci monde de la lutte monde de la lutte ku nekk sañoon nga gis Manga Moustapha Gueye bëri donc tey am na boo yoo xamante ne bëri yoo xamante dañoo toll seen digg jamono dañoo war a nangu bëri ndax seeni mag buñ ci toolee dañ koo def de Balla Gaye ak Modou Lo buñ ci toolee dañ koo def ñaar ñu nekk ñoom ñaar dañoo bëri donc booy nañ bëri seen biir ñu bëri seen biir waaw yoon ñoom ñu bëri seen mm. mais lak nee nga mook Franc intéressé wu la mais lak ci ban euh, maanaam tey est-ce que pare nga pour joxaat ko adversaire non actuellement fi may wax ak yow pour être franc rek euh, démarché wu ma combat la de numéro deux démarche yoomu combat Lac de Guiers numéro 2 maa ngi focalisé wu ci yeneen affiche affiche nag Franc ci la bokk Franc men Franc ci la bokk booy lañ bokk hmm. que dama dama bëgg nag ay Franc ay Talfa ay Dame Sène dama bëgg ñoom ñu bëri ci benn journée. ah da nga leen ci. ña ña papa baari ñu bëri ci benn ñu bëri ci benn ci benn jour ci ne nii loolu laay togg mais aussi ñoom bu ñu gisee keneen ku a a man téewuma kenn nañ jëm ñu tëgg leen dama dégg ne daa yor avance Gaston Production non ma kan sama frère su ma waxtaanee ak moom dina bàyyi Franc moom ma bëri loolu dina ko bàyyi waaw mais euh, Franc kon xanaa kenn koy a wax mooy ah. xam nga ñoom da ngay ki bëgg kële mais am na fooy tool sa carrière il faut nga bëre franc champion la douze combats la def douze victoire waaw man du ma wax affaire parti pris combat fi taxaw bu nee ñee bañ na bañ nañoo bëre ak yow boo toogee di leen xaar doo bëre il faut que aussi nga xool nga xool koo man tudduma Quench sax mën nga xool koo mën a bëreel nga jël ko nga bëree ak moom sinon sa carrière dafay nekk xaw a kii tuuti kon daal li nga koy xelal mooy mu jël combat bëre loolu laa koy wax parce que man du ma ay si ay wax ay par parloo mhm. mbër boo tollee ci bëre da ngaa war a bëre am na ñu mu waroon bëreel def na ay preuve yi nga xamante ne tax na mu bëree ñoom encore une fois beneen mbër bu dëkkoon beneen gox am douze combats douze victoire mi ngi bëri ci combats yi màcce Franc dafa am douze combats douze victoire nekk champion d'Afrique jël jël CEDEAO jël drapeau chef de l'État kon mbër mënu koo bañ douze combats douze victoire am mais comme mbër yi bañ ñoo bëri ñoom bëri ak moom du wañaar loxo ken ne ko kaa ñu bëri mën mooy xool ñoo xamante ne làmb war na leen mën a boole mu jël leen jéem a bëre jéem a avancé jéem a avancé loolu laa ko conseillé te loolu laa ko wax kon Mansour kontaan si yow maa leen gën a bég yéen samay xarit di bég si waa production ñoo leen gën a kontaan macha allah wax bi neex na trop macha allah ah, kontaan nañ trop sant di leen